ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بوكو يني سيطان دي سيطان في تي سفينة تي في دي سين شين بي نين تامو راوتين سين إيميسيون ريليجيون اي سوسيتي ني لين بولين نيو بي ني يالا بولين مو دوي و مانا رامبلاسي بيب نيو تا نيو مونو كو رامبلاسي تا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته gannaaw loolu dellusiwaat nañ ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen plateau religion et société nga xam ne day waxtaane lépp loo xam ne soxal na jamono ak diine tey nag ñu bëgg waxtaane loo xam ne sujet d'actualité la te mooy li ñuy tuddee mu'jiza nga xam ne toujours actualité lay doon ak karama ak li ñuy tuddee istidraaj Euh, mujiza karaama istiraaj yooyu yëpp ay xeetu miracle la danañ ñëw leeral bu nekk ci yooyu incha allah euh, objectif bi nag li ñu motive ngir ñu waxtaane boobu tem mooy umplewu leen fan yii yëpp yéen a ngi suivre réseaux sociaux yi gis benn sëriñ boo xam ne boo ko wéyee sëriñ koo xam ne daal mi ngi feeñal ay karaama karaama di yëgle karaama boo xam ne nar na koo def loolu nag tooguñ fii pour àtte ko dana ko def wala du ko def euh, weddi wala saxal déedéet waaye dañu ci bëgg a profité waale wax leen lan mooy karaama ak lan mooy mojisa ak kan la ko yàlla dénk ak kan la ko yàlla dénkul ak ña koy def di wóoyoo ay sëriñ ñan lañu war a topp ci ñoom ak ñoo xam ne kenn waru leen a topp yooyu yëpp incha allah danañ ci jéem a leeral كم تلوي كتن آه، إن شاء الله أه معجزة لنجيك معجزة أبي ينتم موكاي أم موي ميراكل داي نيك مبير مو خامني داي ووتك لي نيت ني خام خرق العادة لاي دون خرق العادة موي لو خامني دا فا ووتك لي نيت ني خام أه nga xamne yalla daf koy deugalale deugalale ab yonent boo jël misaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit gumba gumba na mu tafli ci bët yi mu xoole nit loxoom dagg na mu raay ko loxo bi ñëwaat loolu dafa wuuteek loo xam ne moom la nit ñi xam moom la nit ñi di gis kooku mojisa la nga xam ne day wuuteeg nature bi nga xam ne doomu aadama xam na ko day wuuteeg tamit yoon yi nga xam ne miin nañ ko ci dund li tax nag yàlla di ko jox ab yonent mooy wan ne ne kii li muy woote ne ne man maa ko ko wooteloo dëgg la ñi nga xam ne dañoo dëgër bopp ñoom pour gëmloo leen yombul ñoom la yàlla foofu la leen yàlla di joxe loo xam ne dana leen jommal maanaam jommal ñi nga xam ne dañoo dëgër bopp wala seen xol dafa dëgër ngëm dugg ci yombul loolu moo taxoon yàlla di ko jox yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam niki noonu tamit bu leen ko joxee ba pare du ci yem waaye bu leen joxee benn miracle day woote lancer défi ñi nga xam ne ñoom ñoo weddi nañ def lu mel noonu ba xam mën nañ ko wala déet buñ ko deful nag ñu ne leen kon gëm leen bu ngeen gëmul ngeen texee di ba faw loolu moo waraloon yàlla kon di jox ay yonentam ay mojisa mojisa nag yonent bu nekk yàlla day xool sa jamono fa mu la yónni lañ gën a fonk ak lañ gën a xereñe lañ gën a aay mu jox la ca loo xam ne ñoom mënuñu ko boo jëlee par exemple yonent yàlla isa bnu mariam euh, alayhi salaam yàlla daf ko yónni woon ci jamono boo xam ne médecine daf ca avancé woon ci nit ñu mënoon wàllu faj di fajee nu nekk waaye yàlla yónni ko ba mu amee ñi ko di yàlla jox ko miracle lu dekkal ku de docteur lu mu mën a mën a faj boo dee moom pare na ci ay pexeem jeex na ci waye mom bu ñëwee rek ne la pëk pëk nga jóg dék niki non tamit di xollo gumba ku gumba da naka docteur yi tamit seen pexé jeexna ci yow waaw mën nga cataracte ñu dindi ko mën nga myope aussi ñu dindi ko wala ñu defal la ci ay pexé waye gumba euh, gisa gumba docteur bu ko fajj waye da daan lo gumba nga tax mu fexé ba tax bi dañ nga muuma mu wax lola ay xeetu mojisa la yoo xam ne yàlla joxoon na ko ko ngir mu jommal nitam ña ngir ñu topp ko ci lañ ko mujjee nag gëmee ña ca am chance waaye ñi nga xam ne seen xool dafa wow moom miracle o oh taxul ñu dugg ci diine boo jëlee yonent yàlla Muusa alayhi salaam moom yàlla daf ko yónni woon ci jamono boo xam ne njabar dafa doxoon nit ñi njabarkat yi rek lañ gëmoon ndax kéemtaan bu nekk lañ leen daan wan te dañ daan njabar seen bët yi kese yàlla yónni ko ci njabarka eh, ci jamono boobu nag ba nga xamee ne firawna weddi na ko ba ne ko indi aaya boo ma xam boo xam ne daf may wan ne yow yonent nga ci la dajalee njabarkat yépp ci benn bés ñépp taxaw di seetaan ci gàttal ci xissa ci bésu tamxarit la woon yow mu zina am na ñu ko firee bésu tamxarit wala premier janvier nee na njabarkat yépp daje di wane ay jaan ak lu ne ñu wone waaye yonent yàlla Moussa yàlla dénk ko yet woo xam ne kéemtaan bu nekk mën na ko cee def mu sànni yetoo mu soppeeku jaan wan na seen jaan yépp kon jommal na leen ca lañ doon woote ci mooy wàllu njabar ba ñu sax ñoom ñu bàyyi njabar yi mujj koo gëm kon jommal na leen foofu karaama gi nga xam ne nag moom moo gën a màgg ci karaama yi te yàlla dénk ko yonent bi salaa salaam te mosu koo dénk benn yonent mooy alquran ndax yonent bi yàlla daf ko yónni ci nit ñoo xam ne wax lañ xam arab wax bu rafet ken dakh ko ko ñom loolu mo nekkon seen kéem kéemaan wax wax yu rafet way way yo xamne ñom ñoom mo len don fajj ci lañ do ci lañ len ñep ci la len ñep nawé won seen mbokk arab yi ak adam yep ci lañ len nawé won yàlla nak indil ko wax jo xamne arab mënul wax lu ni mel ta moy alquranul karim muy nek lo xamne mu'jiza la won ci ñom ndax taxoon nañu bari ci ñom dugg ci diine mu'jiza bobu nak mo fi sax ba faaw ndax mboolem yi la nettali ci ginnaaw muy bu yonent yàlla Moussa ba muy bu yonent yàlla Aïssa ba yépp ci seen jamono la yemoon waaye bu yonent bu salaa salaam mooy dem ba faw kon loolu mooy mojisa ci gàttal euh, yàlla di ko dénk ab yonent euh, beneen bi mooy karaama karaama yàlla yonent euh, ab waliyu la koy jox teraanga la boo xam ne daf ko ko jox ngir teralee ko ko Ah, ndax yonent yàlla yi wax na ci xadis al qudsi na man aada lii waliyan faqad aazantuhu bil xarb képp koo xam ne noonool nga ma benn wali yu ci sama wali yi kooku déclaré naa la ger kon képp ku noonu wali yi wala ngay wax ay wax yu teggeeniwul ci moom kooku génn nga ci diina bu yàgg ndax ku yàlla déclaré ger moom nekkatoo ci lislaam loolu lu mat a bàyyi xel la ndax yàlla moo leen tagg ci alquran ñoom wali yi ci ay ayat yu wute ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله بآية بجيخ نيغا خامنا نيوي غاوي يالا يي امول لوني تيت امول لوني راغال موي نيغا خامنا دانيو گم يالا با بار راغال كو نيت مننا گم يالا تا دوكو راغال منغا گم يالا با بار دي ديف اي تريم دي باي اي نديغلم waaye def bàyyi tere yàlla yi ak di def ay digleem kooku mooy ragal yàlla képp koo xam ne nag melo nga melokaan boobu rek ci gaay yàlla yi nga bokk ndax mën ngaa egg fu ne euh, mu ne nag ñooñu yàlla dana leen bégal ci àdduna bégal leen ci àllaaxira hakaza te yàlla lépp lu mu wax rek loolu la amul kenn ku ko mën a remplacer muy lu mat a bàyyi xel kon ci nga xam ne ñooy nitu yàlla yi mu mel ni firikatu alquran bu ñuy wax imaamul Qushayri بمي فيري كان موي ولي دفنا الولي من توالت طاعاته ومن تولى الحق سبحانه حفظه وإنما يديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة أه وقال تعالى وهو, وهو يتولى الصالحين أه من ولي موي كو خمنا أي جامو يالام داي توبانتي جامو يالام بوم جيغي رك دم باتي دس moom foo ko fekk rek ci jaamu yàlla lay dëkk même mbiru àdduna sax bu koy def jaamu yàlla la ci moom ndax yéene ba mu cay am la waaw kooku lu mat a bàyyi xel la nee na kon ci lay dem nag ba yàlla boole ko ci ay gaayam boole ko ci ñi nga xam ne ñoom lay wax ci alquran wa huwa alladi yatawalla salihin moom mooy ki nga xam ne mooy méngoo ñi nga xam ne ñu yiw lañ ñu baax lañ te def lu baax mooy taxa yiw waaye nag wali yu mënta nekk maasum mënta teg koo xam ne du mooy yàlla wali yu dana mooy yàlla dana def ay rëcc rëcc waaye yàlla daf koy wattu ba nga xam ne du sax du nuur ci ay jaamu yàlla ah, ci ay mooy yàlla nuur ci mooy yàlla mooy def mooy yàlla jéggalu demaat ci defaat ko jéggaluwaat defaat ko jéggaluwaat kooku la tuddee israr mooy yàlla boo ko jéggaloo waratoo waratoo ci delluwaat léegi nag nitu yàlla bi nga xam ne moom lañ war a moom la yàlla di jox karaama ci jaamu yàlla yooyu muy jaamu yàlla ak wottu gi nga xam ne daf koy wottu li yàlla tere di def lim digle dana sax dem ba bàyyi loo xam ne yàlla terewu ko xëy na waaye moom yaakaar na ne bu ko defee mën na koo yóbbu ci li yàlla tere loolu lañuy wax ci istilahaatu suufiya yi ne euh, tarku ma la ba'sa bihi xazaran lima bihil ba's bàyyi loo xam ne gaa dara nekku ci waaye yaakaar nga ne boo ca nekkee Euh, lu yàlla tera da nga ko def kan kooku lu mat a bàyyi xel la moo tax benn nitu yàlla mos naa def benn woy ci wàllu aarut dañuy dafa am lu ñuy tuddee ilzaamu maa laa yalzam ilzaamu maa jàng aarut ñoo koy xam ci wàllu euh, woy ci wàllu arab booy def ay vers léegi nag mu ne ko sa woy wi de danga cee waral loo xam ne warul mooy firi ilzaamu maa laa mu ne ko li tax ma mën ko de mooy saxoo loo xam ne yàlla warulu ko ci man waaw loo xam ne yàlla warulu ko ci man ma waral ko ci sama bopp moo tax ma mën a def loolu yàlla bu fekkee jox nga ko sa lépp di def farataam yi ak naafilaam yi dem sax ba farataal ci sa bopp loo xam ne moom farataalu ko ci yow mais naafila la ah su boobaa kon yow farata saful ñuy wax dootoo bàyyeeti farata ci ngay dem nag ba sa ruux leer nàññi ba yàlla dindil la xijaab li ñuy tuddee xijaab muy kiiraay yi nga xam ne mooy yiir nit ndax man fi ma toog ni euh, mënuma gis soxna ñu ma ba ci biroom li muy def waaye nit dana egg ci jaamu yàlla foo xam ne ba ruuxam leer yàlla dindil ko kiiraayam yi moom dara dootul muuru ci moom dara dootul nekk digganteem ak dara fu mu toll mën naa mën na di gis lu ko neex mën na di teewit fu ko neex kooku jaamu yàlla moo fay egg la nit Euh, te su boobaa nag kooku la ñuy tuddee waliyu min awliya illah donte waliyu aussi bëri na ay garaat euh, moo tax waliyu yi karaama googu nga xam ne yàlla teraleen na leen ko loolu day diis ci ñoom trop waliyu pour mu def karaama day metti ci moom day dem ba sës ba ñàkk pexe soo koo def moo tax Cheikhul Hadj Malick di wax naan ci woyam ba ne innal karaamaati innal karaamaati innal karaamaati xawdun lil xaydun awliya waaw maanaam euh, karaama waliyu bu demee ba di ko def day mel ni góor guy gis mbërëg góor gis góor guy gis règle góor bu doon gis règle na muy ñàkkee xorom ndax ci jigéen lañ ko xam na muy ñàkkee xorom nee na waliyu boo xam ne day def karaama noonu la ñàkkee xorom kon kooku lu mat a bàyyi xel la kon est-ce que woote gi nga xam ne xew na ci suñ jamono maa mën lii maay def lii maay def nangam ngir bëgg a feeñ ñooñu est ce que mën nañ leen tuddee ay waliyu ndax est ce que la ñuy def karaama la tudd ndax karaama am na istidraaj am na istidraaj ab yéefar sax mën na koo def nga xam ne yàlla daf ko koy naxee rek di ko ko naxee seytaane maanaam di ko jay muy def ay mbir nga xam ne lépp seytaane ndax bëri nag nit ku ñuy topp ci jamono lam yor daraay leer amu ci xam-xam bu ñuul rek lay jëfandikoo te xam-xam bu ñuul it lu ne mën na ko mën nga di def loo xam ne day niroog ay karaama nit ñi di la ci topp fekk dara nekku fa waaw bëri na ci kilifa yoo xam ne dañ leen di topp kenn ëpp leen mbooloo ñu yaakaar ne yàllaa nga fa fekk dara nekku fa ay xam-xam yu ñuul rek lañuy jëfandikoo ngir nit ñi topp leen ngir alalu àdduna di leen ñëwal te loolu tamit lu mën a nekk la ndax boo xoolee ñi nga xam ne nekkuñ ay jullit ay tubaab lañ ñoom ñoo defar avion ñoo defar bateau yi dox ci géej gi ñoo defar mbooleem loo xam ne ñun buñ ko xoolee dañ ci yéemu te ñoom duñ ay jullit kon kay xam-xam bu ñuul it mën na lu ni mel kooku ñu ma bàyyi ci xel kon xam nit ki waliyu la wala nitu yàlla la wala sëriñ bu ñu war a topp la ajuwul ci karaama yam lay won ajuwul ci mbooloo mu bari ma koy topp ajuwul ci alalu àdduna bu koy ñëwal déedéet dafa aju ca la Seydil Hadji Malick waxoon mu ne karaama bi gën ci karaama yi mooy istiqaama tegu ci yoon istixaama nag mooy tegu ci yoon te bañ koo wàcc ba faw wax ñu nga tegu ci léeg-léeg léeg-léeg nga wàcc ko comme sama genre gi waaye tegu ci bañ ko wàcc bu faw nee na loolu karaama ëpp ko doole ci waliyu loolu mooy karaama gi nga xam ne du jeex mukk ah malheureusement nag suñu jamono bii ñuy dund nit ñi dafa mel ne sénégalais yi ñoom ku leen di nax lañ bëgg moom balaa ngay nekk sëriñ bu mag rek il faut nga toog ci télé ba wax boo toogee ci tele bi wax rek yow lañ gëm yow la ñuy loo xam ne kenn wanewu ko waaw te su boobaa nag loolu tuddul karaama mën na dugg ci baabul istidraaj hakaza kon waliyu du nekk koo xam ne ku bëgg fés la du nekk ku bëgg feeñ moom daree àdduna yitteelu ko moom bu demee bay fés la tax muy fees mooy loo xam ne feesam nga day defar la ci jublu waaw xam nga ku mel ni suñu sëriñ bi nekk fii Thierno Yoro Bane kenn du ko gis mu toog ci télé naan ñëwal ma ñaanal la lii wala lii laa man wala laa laa mën te chaque jour ken xamul ñaata nit ñoko fi ñëwal parce que li def daf ko man lajul mu tok di wote kon ku man dëgg dëgg dëgg jarul nga tok di wote wala ngay publicité wu dedet boko mané rek yàlla moy def ci xolu nit ñi ñu fekk ci la kon nit ñi lolu war nañ ci yew bu baaxa baaxa baax wote gi nak ci jamono ëpp na ëpp na ëpp na ay loxo ci télévision yi ci internet bi ku bëgg buzz rek wax lu reuy man na nangam dana ko def jour tel waaw xam naa la dis or moom si sumbéju nar naa nar naa xumb ndax am na ko ne dafa bëgg a xaar géej gi man de danaa dem seetaane ko xam naa ndax ndax weddi tax weddi moom wóorul dëgg la ne bari na karaama yoo xam ne yàlla joxoon na ko yonent yi paase da koy jox xeet Seydina Muhammad loolu kay lu am la waaw wali yu ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bari na wali woo xam ne euh, am na loo xam ne yonent ci yonent yi njëkkoon amuñu ko loolu am na donte yonent yi ñoo gën ci nit ñi waaw ah, lu am la loo xam ne lu firndewu la ndax yonent yàlla Suleymaan fu mu jëmaan lu mu daan war ngelaw avion ngelaw la ci ngelaw ngelaw moo koy doxal oto yi ñuy yéeg fu ñu jëm bu ci ngelaw génnoon dootu dawati suñu moyen de transport yépp ci ngelaw la aju kon karaama ga yàlla joxoon yonent yàlla Suleymaan jox na ko xeet Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niki noonu tamit mën na leen a jox yeneen mojisa yoo xam ne joxoon na ko ay yonent mu nekk karaama ci ñoom loolu lu mën a nekk la ndax boo xoolee fii ci suñu dëkk bi rek am na nitu yàlla bu fi toxal géej ne géej gi tuxul ma dëkk géej gi tuxu mu daal di dëkk ak yeneen karaama yoo xam ne bari na yoo xam ne nitu yàlla dañ koy def waaye li ñu wax sànq rek affaire bi nekkul ci karaama yu bari nekkul ci jommal nit ñi waaye mi ngi nekk ca kem manam na nga teggo ci yoon ak na ngay jaamoo yalla rafetal ba mu laaj nga def ko lool moy karama bi gëna mak wa ndax bu dee karaama rek kit sahaba yi kenn ëppulewoo len ko won mais daawuñ dox benn euh, sayyidina umar Omar al-khattab radiallahu anhu dafa tok ci minbar ba di khutba di khutba bam yag fekk amna na euh, benn armée bu mu yebaloon ci benn dëkk ngir ñu dem guerre yi armée bobu nak bokku na kuñ ci ku ñuy wax sariya <clears throat> ku ci nekkone saar ya nek ci ay xat-xat yu metti euh, ngir non yi bañ ko jekku sayyidna umar khutba ba ci bir khutba mi ngi ci madinatul munawwar wa yalla mi ngi def mi ngi jàkkaarloog xare bi limu la doon wax sank ci kira yi nga xamne moy nit ba du gis euh, lu luko luko du gis luko ump jaamu yalla mun na dem ba leral sa xol leral sa ruh ba nga koy gis yo sayyidna umar na ngum passé woon na mu jek jek nako ya sariyata al jabal aljabala aljabal saar ya làqatul ci montagne boobu nekk sa wet làqatul ci montagne bi ndax nga mucc wax loolu rek continuer xutbaam bi mu ko waxee Seydina Ali daal ne lii de mbir la bañ ca tegee ay weer ba armée ba gañ a xare ba ba ñibbisi saar ya ci boppam moo ñëw nettali ko mu ne ba mu nekkee place sàngam heure sàngam nekkoon naa ci ay xat-xat sàngam ba mu dégg kàddu Seydina Omar mu naan ma làqatul ci doj bi kooku kay karaama ëpp ko doole mais est ce que daan nañ ko doxee wala ñu daan ko waxee kon fi ak ñi ngi koy doxee di ko rek tuddatul karama su boba riya u gëna niru ngistal ak wote kay leen wuy si ma waaw te na ci Seydina Muhammad la yam amul benen yoonent bu ñëw ginnaw kon koku lu mata bàyyi xel la kon karama dal bokku na ci li nga xamne alquran saxal nako ndax wa ashabul kahf yàlla netal na seen xissa ci alquran ñu nelaw ñaata téeméeri at yàlla yee leen dekkal leen loolu karaama ëpp ko doole ñetti téeméeri at trois cent ans ñu nelaw ko yàlla dekkal leen ñu wax ak nit ñi soog a génnaat àdduna te fañ doon nelawee sax soriwul fa nit ñi dëkk te teewul kenn mënu fa woon yegg kooku karaama la goo xam ne alquran nettali na ko bokk na ci karaama yi nga xam ne saxaaba yi def nañ ko ba léegi ku ñuy tuddee benn saxaaba bu ñuy tuddee saabit ibnu qays moom gannaaw bi mu génnee àdduna sax ci la ko yàlla jagleel karaamu boobu ndax dafa génn àdduna ci biir ab xeex bi mu deewee nag fekk moom mbubb koŋ bi mu soloon mooy yére yi nga xam ne bu ñu daan xare moom lañuy sol ba mu ci soloon dafa am voleur torop léegi nag benn waay ñëw romb ko gis yére bi am valeur te ki ko sol génn na àdduna rek mu ñëw summi ko jël ko yóbbu benn kenn ci saxaaba yi moo tëdd di nelaw gént gis ko moom saabit ibnu qays radiallahu anhu mu daan ne ko sama mbubb koŋ ba ma soloon ba may xeex de am na benn waay bu ñëw benn militaire bu ñëw fas wu mel nangam la war tànk yi nangam ak nangam la mel moom moo ko jël mu ngi place sàngam demal nga jëlali ma ko defal ma defal ma ci nangam ak nangam ci sama famille nee na saxaaba ba mu yeewoo mu wéyal ndenkaane boobu mu ko dénk kon kooku kay karaama la Euh, kon wali yu daal duñ ko xamee ci karaama kon képp ku ngeen gis di woote muy woote naan man la man la xam leen ne du moom waaw man la man la ju nekk moom du yow ndax bokk na ci yi nga xam ne day alag nit euh, man la foo toll di kañ sa bopp naan man la man la wala ñun la wala yu mel noonu am na benn woykat bu ko boole ci woyam euh, ñeent yi nga xam ne day alag jaam bokk na ci man la wala ñun la di ndamoo sa bopp wala di ndamoo famille bi nga bokk kooku baaxul ndax yàlla moo wax ci alquran ni fala ko anfusakum huwa aalam bi man ittaqi bu leen nekk di tagg seen bopp wala di sellal seen bopp naan sama jikko nangam ak yooyu noonu yàlla nee na bu leen ko def ndax yàlla moo leen gën a xam ki nga xam ne moo ragal te melokaan bi tiim bi mboolem melokaan yi nga xam ne moom la nawee doomu aadama te te muy tax yàlla teral ko ci àdduna mooy ragal yàlla kon yàlla mu ne bu leen ndamu kon daal ñu bàyyi ci xel bu baax bay xel ci euh, wote yi nga xamne dafa bari ak naxe yi nga xamne ne ñi ngi koy nax doom adamay koku ñu bay ci xel borom xam-xam yi bari nañ fi waye legi ñi nga xamne ñoy wax ñi ci ëpp seen xam-xam demul fenn motax ñoñu sax bo boy xol bo xol ñoo dem ba neub borom xam-xam yi ah parce que ñi nga xamne ne ñoo warul wax bu ñi wax ñi wax dañuy nopi setan len ñi wara wax dañuy nopi setan len mais borom xam-xam yi ñi ngi fi képp koo xam ne bëgg nga ñaan wala bëgg nga dara na nga gëstu boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom la yàlla dénk loolu te bàyyi fi wootekat yi kon loolu lu mat a bàyyi xel la kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax karaama moom yàlla mën na koo dénk ku ne euh, istidraaj aussi yàlla mën na koo dénk sax koo xam ne du jullit muy def loo xam ne day yéem doom aadama yi waaye lay teqale karaama ak loolu mooy euh, lee day neex a xam balaa yàgg rek moom kii def loolu yàlla mën na koo feeñal ba kenn dootu ko gëmati alors ko bu dee karaama nag dafay sax ba faw bépp karaama bu fi nit yàlla defoon ba léegi dañ koy nettali bépp mojise bu fi ab yonent defoon ba ilaa yawmil xiyaama dañ koy nettali waaye bu dee loo xam ne euh, ab njabarkat moo ko def ndax njabarit lu ne mën na ko mën ngaa njabar ba xar géej gi waaw mën ngaa xar géej gi tam nekk ci wàllu istidraaj kooku yëpp mën naa nekk kon kooku ñu bàyyi ci xel bu baax a baax nekkul loolu moo war a tax ñu topp nit wala ñu bañ koo topp euh, topp yàlla def ay ndigalam bàyyi ay tereem ci la nit di demee ba am garaat ba nit ñi topp ko mais nekkul ci leneen lañ war a toppee nit ci lu dul loolu euh, kon euh, yaakaar naa loolu lañ préparé woon pour waxtaane ko tey ci wàllu karaama ak mujiza ak istidraaj lu ci leer ci yàlla la lu ci lëndam ci ñun ñi ko doon waxtaane ak sunu gatt gàtt xam-xam ak ñàkk fasaha in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh